أعوذ بالله سميه العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان الحمد لله الذي بدونه ما كان ليقت القلم شيئا ولا لينطق اللسان بحرف والصلاه والسلام على أفصح الحرب والحجم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته قر الميامين وعلى التابحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأقواتي المشاهدات أيها الأحبة في الله أينما كنتم في مشارق الأرض ومخاربها نحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكيني سيطان di ànd ak ñun ci seen programme diine ji fu ngeen mën a nekk ci goxu àdduna bi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci mbooleem nuyoo yi di ñaan yàlla na yóbbu li mu ëmb yépp ci jàmm ak yërmande yàlla ak barke yal na ñu ko yàlla boole defal ñu ngi ñaan suñ nuyoo yal na fekk ñépp ci jàmm waaye jàmm jooju yal na ci yàlla jiital boroom kër gi fii waaye boole kook direct bi nga xam ne moo amee programu télévision bi ak mboolem staff bi ak mboolem liggéeykat bi yal na yàlla bokk dimbale ñépp mbokk yi tey nag mu ngi mel ni ñu ngi fas yéene waxtaani xikmatu min nisbati siyaami ila duna baqiyati al ibada tey li ñu fas yéene waxtaanee càmbar ko bokk ko jàngat ak yéen mooy lan moo tax yàlla jël weeru koor askanale ko boppam moomale ko boppam te yeneen jaamu yàlla yi des yépp yalla ko moom waaye mu soppi ci mu seppi ci weeru koor ne bii maa ko moom man yàlla bokkuma ko kenn te maa koy fayal suma bopp mbokk yi loolu la ñuy jàngat tey lu tax yàlla romb fi julli ak julli ni mu màggee nga xam ne gannaaw kalima shahada gannaaw ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gannaaw kàddu boobu julli mooy ponk bi gën a rëy ci lislaam gannaaw shahada julli mooy ponk bi gën ci mboolem ponki lislaam yi lan moo tax yàlla romb fi julli moomalewut julli boppam mu romb fi asaka waxut ne maa ko moom romb fi aj makka waxul ne maa ko moom waaye jël koor koor seppi ko ci biir juróomi ponki lislaam yi ne bii suma bos la lan moo tax yàlla seppi koor ci biir jëf yu baax yi ci biir ponki islaam yi mu seppi ci koor moomale ko boppam def ko idaafatu tashrif ci boppam idaafatu tashrif wa لا يلا دف كور تي بوبام موتاخ موني الصوم لي كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله يالا جلنا كور مومالي كو بوبام nee na asawmu lii koor maa ko moom lu tax yàlla waxul ne julli maa ko moom lu tax waxul ne asaka maa ko moom lu tax waxul ne aj màkka maa ko moom te ku ne xam na ni jaamu yàlla yooyu yëpp yàllaa ko moom waaye waxu ci benn ne maa ko moom koor rek la yàlla jël ne asawmu lii koor maa ko moom wéru koor pour man la mu askanele ko boppam comme ni mu jëlee agjuma. ak juma moomale ko boppam bo ñëwee ci jàkka ak juma baytullahi la ñuy wax néegu yàlla jakka joo gis néegab yàlla la jumaa joo gis néegab yàlla la duñ wax néegu kenn baytullaahi la ñuy wax néegu yàlla ba ci kaaba gi sax baytullaahi alxaram la ñuy wax néegu yàlla bu ñu xormaal bi te xam nañ ni néeg yépp néegam la li fi nekk yépp yàllaa ko moom kenn moomul dara yàlla moom lépp waaye seppi na jàkk yi ak jumaa yi moomale ko boppam te xam nañ li fi desit moo ko moom noonu la seppee weeru koor ci biir ponki lislaam yi juróom momale ko bopam ni asawmu li lii koor maa ko moom ci hadithul qudsi mom yàlla yonent bi nettali ñu ko yàlla ne kullu amal ibn adama lahu الحسنه bi xashri amsaaliha yàlla ne na illa sawma fa innahu lii wa ana ñu naa mu ne ajisi bii mbokk yi lii ci koor rek la ko yàlla wax waxu ko ci benn ponk ci ponk lislaam yi koor la yàlla wax lii yàlla nee na doomu aadama lu baax lu mu def moo ko moom lu baax lu mu def boppam la ko defal bu defee benn bu baax man yàlla benn bu baax boobu dinaa ko ci fay fukk yu baax yàlla dina fay benn pour fukk waaye dana dem ba fay benn bu baax pour juróom-ñaari téeméer yu baax danay fay benn bu baax sax lu ëpp juróom-ñaari téeméer lu baax loo def yàlla mën na la di ca fay benn bu baax ba fay la ca juróom ñaari téeméeri tiyaabo yu baax ci sa benn bu baax boobu yàlla mun na la ko cee fay mën na laa fay sax lu ëpp loolu waaye boo ñëwee ci koor li lay xamal ne koor emul ak dara li yàlla di fay ci koor du ko fay ci benn xeetu jaamu yàlla yàlla ku tabe la waaye bu ñëwee ci ramadaan ci la yàlla di gën a tabe nag jéggale kat la waaye bu ñëwee ci weeru koor day yokku njéggalam ku bëri yërmande la di ko sotti jaamam yi waxtu wu ne waaye bu ramadaan ñëwee yàlla day yokk yërmandeem danay goreel ay jaam ci safara waaye ci ramadaan nag li yàlla di goreel bis bi njëkk ci ramadaan ba keroog ñu ne suba la korite guddi gu nekk sunu borom dana ci goreel jaam yu bari yu waroon a dem safara mu goreel leen ñu génn ci buumu njaamu safara nekk nitu aljana loolu ci ramadaan rek la ko yàllay def motax wéru promotion la aha wéru promotion la motax mu ne à def ci lu bax moko mom fay Ben bu pour fukk yu baax danaa jël benn bu baax di ko fay suma jaam bi ba benn bu baaxam boobu ma man koo ci fay juróom ñaari téeméer yàlla nii na ba mu des koor nag allahu akbar mbokk yi fii ngeen di xamee ne weeru koor emul ak dara yàlla ne ba mu des koor ñu ne lu tax nga seppi koor yàlla ne koor maa ko moom te maa koy fayal suma bopp nañ seet lu tax yàlla ne koor moo ko moom bala ñoo ñëw ci nee na moom moo koy fayal boppam li tax yàlla jël koor moomale ko boppam askanale ko boppam mooy ixtasahu llahu bi nafsihi li anna sawma sirrun bayna al abdi wa rabbi la yutalliu alayhi illa allah li tax yàlla askanelee boppam koor ne maa ko moom mooy koor dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne sekkere la ci diggante jaam bi ak boroomam koor sekkere la ci diggante jaam bi ak boroomam bu ko jaam bi defee kenn mënta xam ne jaam bi oor na walla oorut moom rekk moo mën a xam ndax mu ngi woor walla woorut walla yàlla mi ko bind aji woor ji rekk moo mën a dëggal ne moom oor na walla yàlla mi ko bind Mhm. jaamu yàlla yépp ngistal mën na ci dugg wanewu mën naa dugg ci jaamu yàlla yépp ba mu des koor mën ngaa julli di dem jàkka ngir nit ñi gis ne diwa ngi dem jàkka kon julli li muy baax baax wanewu mën na ci dugg njistal mën na ci dugg mu yàqu bëri na ku julli te yàlla taxut nit ñee tax muy julli ñépp dañ jot jàpp di julli moom it xamul nu muy def ndax nawleem yépp jot nañ di jàpp di julli mu jot jàpp julli asaka li muy baax baax ak saraxe joxe ci yoonu yàlla njistal mën na ci dugg bis bu nekk nga gis kuy joxe teraanga ci céet baa ci takk walla ci ngénte walla ci muur walla ci màggal baa ci gàmmo ne ool leen ma caméraman bi mu ñëw jël teraanga ji kon kooku la taxoon muy joxe teraanga bëgg àdduna gis ne diw toj na toj na gàmmo ga walla toj na ngénte ga toj na xew la moom la ci bëggoon moo tax nangu ko joxe ci sutura dafa woote ndaje ndaje ma doyu ko sax mu ne ool leen ma caméraman bi kon joxe sax ci yoonu yàlla li muy baax baax léegoo léeg ngistal dugg ci biir yàq ko wanewu taxaw ci gàmmu gi baatare ngir boo xëyee rekk ñu ne diw toj na fi yoonu màkk li muy baax baax léegoo léeg àdduna dugg ci njistal dugg ci nga dem te yàlla taxut mu ne waaye koor ñu ne amu ne njistal amu ca place koor weeru koor amul naxe amul njistal parce que diggante jaam bi la ak boromam dangay woor dëgg am koor ca yàlla baa nga ñàkk a woor rek waaye wooran woorantu am koor moom yàlla mayu ko kenn dangay woor rek am li ñuy tuddee koor te yëg nga ne yéeféer yi jaamukatu xiram yi bokkaalekatu yàlla yi balaa lislaama ñëw defal nañ seen xiram yi xeetu jaamu yàlla bu nekk li ngay def ni yëpp yéeféer yi defal nañ ko seen yàlla yi su dee julli su nañ seen xiram yi li julli baax baax yéeféer yi dañ daan su seen xiram yi di len magal di genné sen alal di len ko tégal di togg ay ñam ay fruits ay banana di ko indil hadiya sen yalla yi pour ñu lek kon budé asak bi ngay joxé ñom dañ ko daan defal sen yalla yi bu dee añ màkka ñoo la njëkk ci kaaba gi dañ daan wër xërëm yi hubal laata xusaa manaata ak hubal ñu ngi woon ci digg kaaba gi sampee fa bis bu ne yéeféer yi tawaaf leen di leen wër di leen tagg yàlla nee na yooyu yépp defal nañ ko ñiñ ma doon tëkkaleel ci àdduna te duma seen moroom bu dee julli la jullil nañ suma wujj yi su dee asaka la yéefér yi defal nañ ko seen yàlla yi bu dee tawaaf wër kaaba gi aj makka bii ngeen may defal yéefér yi defal nañ ko seen yàlla yi lenn rekk ngeen may defal te mosuñ koo defal benn këram mësuñ koo defal kenn ku ñuy jiiñ yàlla ci àdduna mooy or amul benn yéeféer bu mos a bëgg yàllaam ba yegg ci xëy ooral yàllaam boobu ooral xërëmam boobu seen xel mosta egg ci ooral seen yàlla yi waaye lu dul koor rek yéeféer yi defal nañ ko seen yàlla yi jullil nañ leen saraxel nañ leen xajal nañ leen koor rekk la yéeféer yi defalut seen yàlla amuñ ci kenn koo xam ne kuur googu ngay jaamu walla xeer woo ngay jaamu walla safara suusu walla garab boobu walla nit kooku baa ndox moomu jaral na la nga xëy ooral ko ñàkk a lekk ñàkk naan suba ba jant bi so loolu yàlla rekk lañ ko mos a defal ci àdduna moo tax yàlla ne koor maa ko moom boobu special jaamu yàlla la pour man bokkuma ko kenn yi des yépp boole ngeen ma ko gaay te ba léegi yéen ak ma koy booleeg ñoom am na koo xam ne day julli pour àdduna day julli pour nit ñi waaye man yàlla taxuma am na koy joxe ngir ñu tagg ko ngir ñu wéy ko kon man taxuma joxe gi boole ngeen ma ko keneen am na kuy ñëw ba ci suma néeg bi naan ma labbayka ma yebal ndaw mu di ma la tontul naan la laa labbayka wala sax day ka am na kon koor laa moom yàlla nee na koor laa moom bu ma bokkul ak kenn mooy jaamu yàlla bu ma bokkul ak benn xirim moo tax mu ne bii maa ko moom yemu ci de allahu akbar li tax mu ne maa ko moom nee na yadaru shahwatahu wa taamahu min ajli yàlla nee na jaam bi dafa bàyyi jabaram te jabar ji lew ko dong lew ko lool sañ ba jekk di daagu ci diggante saal beeg cabinet beeg ëtt beeg waañ bi di jaagar jaaga yi di dem a ñëw mu leew ko nag waaye ma jaral ko man yàlla mu nag bakkanam boobu aaye ko jabaram ni du ko teg loxo du bànneexu ci moom li tàmbalee fi fajar xare ba fi jant bi so Sur na jabar ji ngir man ak limay bëgg bëgg ba neex jaral nako, ko mu jabaram sur jëkkëram ngir man allahu akbar mbokk jam jàmm bi def na Motafani lu reuy pour yalla motax fan yi dama gis benn waay bu xiif bu or xiif jàpp ko xam naa siise la sant ndeysaan ma xool ko fi mu tëdd ni ko weeru koor wi jàppee ak ni mu koy yaree <laughs> ma xool ko ni mu tëddee ndeysaan yërëmtalu mu nga sonn xiif baan ko xiif baan ko jàpp ak mar wi mu tëdd ci suuf ma xool ko ba yàgg ma ne cey dëgg-dëgg lii gëw ma ne kenn dina ko defal yàlla ba dajeeg moom mu di la yóbbu safara mënul nekk mu ni xoolal jaamab yàlla bii rekk mu ngi xiif mu ngi mar am na lum lekk am na fu mu lekkee waaye am na ku muy bàyyi xel ba ragal a lekk gëw ne kii dina daje kooku mu doon ragal kooku di ko jël di ko yóbbu safara mbokk yi mënul nekk koor kenn du ci jaar te yàlla tax ngay dëkki feneen fu dul aljana mënul nekk mu tax dama ko xool ak coonoom rek ma ne ko coono bii dara du ci tegee ëllëg lu dul dem aljana rek te yonent bi wax na ko nee na inna fil jannati baaban يقال له الريان يدخل فيه سائمون يوم القيامة لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا نت أغلق فلم يدخل منهم أحد يننت بننا أمن بنتي تي الجني الجنة بنت بو قمني يلا كتدي ريان ci buntu ba ñu ngi fa bind baabu rayaan fii mooy buntu rayaan pour kan la yàlla ni fii mooy bunt bi oorkat yi di jaaree pour dugg aljana rayaan pour oorkat yi la baabu rayaan mu ne yadxulu fiihi saaimuun yowma alqiyaama buntu rayaan boobu ci la oorkat yi di jaaree dugg biir aljana ëllëg yowmal qiyaam yonent bi nee na bunt boobu nag ku daanu ton or ci àdduna bu yowmal qiyaamee soo fa bëggee jaarit doo fa mën a dugg <laughs> xam nga lu tax mooy dafa am kóot dafa am kóot xam nga ñun ñu ngi am ay ATM card yoo xam ne ku ci ne yaa ngi am account boo xam ne serial number bi boo ko waxul nit amul kenn ku mën a dugg ci sa account boobu génnee fa xaalis am na ci suñ bunt néegi bunt yoo xam ne kaat ngay dugal door faa mën a dugg am na bunt yoo xam ne sax fingerprint sa baaraam moom ngay dugal bunt bi tijjeeku nga door a dugg waaw rek ñëw ba xam ndax dinga nga duggam déet yowmal qiyaam bu ñépp dekkee yàlla day sant benn malaaka na ko wooteel mu ne ko ñu may woo yàlla na ko ooxal oorkat yi malaaka bi yuuxu ne ay na saa imuun ana ñi daan woor ci àdduna te yàlla tax képp ku daan woor rafetal koor ga def ko ni ko yàlla bëggee danga naan ñokkeet jot taxaw ci biir mbooloo mi or kat dañuy jóg waaye ñi ñàkk jom mat waxambaane mat jigéen Lan ne duñ di defar sen ndew di togg sen baxalu saalum ben benn cin go weeru ko di añ ta dara jotut len yowmal qiyam dañuy bëgg jox sen diggi day can duñ mëna jox ñi daan or rek ñoy mëna jox bisu yalla ñu ci yalla boole ay na saa ana oorkat yi ku daan woor ne ñokket jóg taxaw malaaka bi na leen yàlla nee na seen bunta ngóg duggee leen buntu rayaan ñu wan leen seen dëkkuwaay ci biir aljana yal nañu yàlla boole ci ñooñu di nga gis ku bëgg jóg yàlla du la may kàttan nga mën a jóg da ngay bëgg a jot sa ndigili can parce que amoo kot nomba bu la yëkkati daanu woor moo tax bëgg a dem taxul la mën a dem de mën a dem mooy tax a dem yent bi nee na bunt boobu oorkat yi rek ñoo fay dugg ku daanul woor doo mën a faxe mukk ba jaxasoog ñoom wala jaar baat wi ba dugg mënul nekk baat wi moom baat wee moom fii la xew àdduna fii waaye yowmal xiyaam amu fa orkat yi foofu la ñuy jaar dugg aljana buntu rayaan moo tax yàlla ne jaam bi lim def dafa rëy ñu ne ko lum def mu ne dafa ban dafa bàyyi bànneexam ngir man yàlla mu bàyyi añu bëccëg ngir man firij baa ngi fees del ay pom banaana ndox mu sedd lépp bakkane man ko bëgg mu nekk ci néeg bi bu ko neexee tëj bunt yi añ ba suur naan ndox mu sedd génn jàkkaarloog nit ñi ne leen dama woor lii yépp mën na koo def waaye defu ko ngir man am na ku muy ragal am na ku muy bàyyi xel mooy man yadau shahwatahu wa taamahu min aj ku tax nga bàyyi soxna si ku tax nga bàyyi añu bëccëg ku tax nga bàyyi ndox mu sedd du kenn yàlla rekk la moom rekk nga ragal moo la teree naan moo la teree lekk yàlla ne kooku lim def pour man dafa rëy moo tax buñ demee ba egg ci fay yàlla ne na du ma ko booleeg malaayika du ma ko booleeg ab yonent face to face man yàlla maa koy fayal suma bopp ndax lim def ku ma yónni ci moom rek xeeb ko bu ma yónnee malaayika li ma bëgg mu fay ko ci ñàkk a lekkam googu ak ñàkk naanam googu du ko mën a fay kom man yàlla ni ma ko bëggee bu dee ab yenent la du ko man yàlla nee na aji woor ji bu dajeek man du ma yónni kenn pour mu fayal ma ko man yàlla maa koy fayal suma bopp asawmu lii wa ana ajisi bi koor maa ko moom te maa koy fay mbokk yi xam nga lu ci neex mooy jaamu yàlla yépp yi ñuy defal yàlla benn bu ci nekk yàlla wax na la ñaata la ciy fay jaamu yàlla yépp benn bu nekk boo ko defee mu baax yàlla wax na la ñaata la la ciy fay waaye boo ñëwee ci weeru koor li tàmbale alif lam saalikal kitaab ba ci minal jinnati wanaas amul fenn fu yàlla wax ne koor nangam laa ciy fay amut amul benn xadis bu ko indi fu yàlla wax ne weeru koor nangami tiyaabo laa ciy fay amut te boo ñëwee ci jàng alquran wax na lim ciy fay نين لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يالا نين بومي فاي جانغ كاتو القران بي كي جانغ سوما تيري بي سوما كوي فاي دوما كو فاي بار حسب دوما كو فاي بار سار دوما كو فاي بار آية دوما كو فاي بار بات واي بوما كوي فاي بار عرف لا كوي فاي عرف ليترز leeta bum jàng araf bum jàng ma bindal ko ci fukki tiyaabo yàlla nee na du ma fay alif laam miim harfun alif laam miim ma fay ko ci fukki yiw déedéet alif bi fukki tiyaabo la laam bi fukki tiyaabo la miim gi fukki tiyaabo la yaag moom nag tambale fatiha alif lam mim salikal kitab ba ci minal jinnati wan nas yàlla neena par araf lay fay jambi ben araf bo jàng ci alquran ma fay le fukki hasana fukki tiyab kon ci jàng alquran waxna la limuy fay pour ben araf ñëwal ci julli julli juróom fukk la woon bi koy yonent bi jëlee ci yàlla di ko indi juróom fukki julli la woon yonent yàlla Muusa moo digal Muhammad na ko diis na bari na demal yàlla wàññi ko yonent bi dellu yàlla di wàññi par juróom ba mu des juróom juróom yi sax Muusa def ko ne ba léegi diis na dellu ñu wàññi la ko ñu wàññil la ko sayduna muhammad ne ko rus naa dellu kuñ joxoon juróom fukk di la ko wàññil ba mu des juróom rus naa a dellu ci yàlla yàlla na ko li nga wax ak li la Moussa wax yépp dégg naa ko léegi yóbbul juróom yi ku ko julli mu matt ma bindal la sawaabu xamsiin yoolu ko julli juróom fukki julli yi ma la joxoon kon benn julli bu ne yàllaan kii fay fukki tiyaabo boo jullee juróomi waxtu yi mu mucc kon am nga juróom fukki yiw juróom fukki tiyaabu am nga ko ci yàlla kon wax na la li muy fay ci benn julli mu ne boo ko defee ca mbooloo ma bu dee da ngaa dem jàkk walla nga dem jumaa defee ko fa wala dangeen ko defee ci mbooloo léegi duma ma benn julli pour fukk waaye comme dem nga ci mbooloo mi nag julleeg mbooloo mi foofu moom bu may fay benn julli ñaar fukki yiw ak juróom laa la ciy fay baa ñaar fukki tiyaabo ak juróom ñaar ngir la ko defee ji ca mbooloo ma kon ba léegi wax na la boo jullee yow kenn fukki tiyaabo nga am boo demee jàkka am nga ñaar fukki yiw ak juróom wala ñaar fukki yiw ak juróom-ñaar kon ba léegi jox na la figo wax na la li muy fay ci julli yow kenn wax la li muy fay ci julli mbooloo kon boobu leer na ñëwal ci asaka ak saraxe joxe ci yoonu yàlla yàlla nee na benn dërëm bi nga joxe tama tax benn dërëm boobu fukki yiw laa laa la ciy fay nga joxe fukk ma fay la ci téeméer nga joxe téeméer ma fay la juróom-ñaari téeméer ba junne sax baalu ko ëpp akbar moo tax seydina aliyu karamallahu wajha ku yàlla nattu woon la ci ñàkk àll yu ñàkk na ba ñàkk ga mitti ba mu jël mbubbu jabaram fatimatu bintu rasul àll yu ñàkk na ba jël mbubbam yóbbu ko marché pour jaaye ko pour am lu mu dundee jigéen ju baax jëkkëram yàgg naa am soxla mu eewi bay jox ko walla eewi xar jox ko walla jël as nganaar na ko nijaay yokk ko ci soxla si wallaay ndeysaan suñ yaay jaar nañ ci loolu ba taay yal na leen yàlla fayal tabaski jot góor gi amul dara sa ndey eewi kuyu xar walla bëy na ko nijaay am te yàlla tax moom lañ nekk di fayee ko tey nii nag yal na ñu leen yàlla fayal Ali jël na mbubbu Fatima yóbbu ko marché pour jaayi ko pour am dépasse ngir ñàkk mu génn kër gi taseeg benn góor déglul de góor gaa ngi omat benn gélém naan gélém a ngi nii kuy guy jaay de ku bëgg ma jaay la gélém taseeg àll yi ci yoon bi nuyuwanteeg moom na ko góor gi bëggoo gélém ma jaay la àll yi na ko man dépassé ma tënk nga naan ma mbiri gélém fu may jëndee lu ma jëndee gélém góor gi na ko amoon mu ne ko dërëm yoruma ko mu ne ko mën naa la koo lebal seet bàyyil ma lebal la ko mu ne ko nga ni mu ne ko mën naa laa lebal gëléem gi yow faxeel ba bëgg rek booy bëgg ma lebal la ko Aliou na ko bëgg naa ñaata nga ma koy lebalee mu ne ko juróom-ñaar fukki diinaar laa la koy lebale Aliou na ko nangu naa tegal ñu jaayante mu jël buum gi jox Ali dal dem Ali yu omat gënam gi booleeg mut mi jëm marché geneen góor taseeg moom ci yoon wi na ko góor gi gëlëm gi day jaay mu ne ko waawoo mu ne ko jaay ma ko mu ne ko ah dañ ma ko lebal ci juróom-ñaar fukki diinaar góor gi ne ko tegal naa la fanweer tegal naa la ñetti fukk muy téeméer nga jaay ma ko alli na ko nangu naa mu jaay ko gëléem gi ci téeméeri diinaar góor gi yóbbu gëléemam bi alli yi dugg ci marché bi ki ko lebaloon gëléem gi daje na moom na ko góor gi gelem nga jar ma fay ma suma khalis alli konte juróom-ñaar fukki dinar yi fay waji ji profitu ñett fukki dinaar dugg ak mom marché def shopping nee nak nag Fatima jabar ji ku bëgg pom la te gej nay lek pom mu jënd fa benn pom ne xaaral mu yóbbaaleel ko Fatima ngir bëgg lu neex jabar ji bi muy uni si ci yoon wi fekk génn góor gu feebar boole ko xiif xiif baa ngi ko jàpp ba mu tëdd ca kaw yoon wa mënatul a dox tëdd ne làcc àll yi romb ko mu naan ko nii alina ko lan mu naan ko nii pom bi nga yore moom laa soxla Seydina Ali jaxle li tax mooy pom bi benn la benn pom la jan te jabaram Fatima la ko bëgg a yóbbul ca kër ga góor gi ni ko laaj pom bi te pom bi nekk benn bu ko ko joxee du am lum yóbbul jabaram mu ne ko nga ne góor gi ne ko pom bi dimbale ma rekk sarax ma rek te yàlla tax fii ma tëdd ñaara ma fi benn bi mooy wéradi ñaareel bi moy xiif sarax ma pom bi rek ta yalla tax yalla xamna ni suma ma lek do ma fi baye dana ni ñokket am katan mana dox comme yow dimbale ma Aliou jël pom ba jox ko pom bi mu waroon yobul Fatimatu bint Rasul ñaan nañ ko ko ci yoon wa Aliou saraxe na ko ndeysaan mu ñibbi si xool ko di muñ déree <laughs> cëy ñu toog benn fan ñaareelu fan bi yàlla yebal jibril alayhi salaatu wasalaam mu indi benn basketu wurus bu mel ni basketu pom ñëw jox ko yonent yàlla muhammad na ko wa rabbuka yuqri ko salaam sa borom a ngi lay nuyu ci yàlla laa jóge ko yonent bi ne ko minhu salaamu wa ilayhi yarjaxu salaam yàllay jàmm mooy borom jàmm ku am jàmm moo la ko jox te ci moom la jàmm di bàyyeekoo ci moom la jàmm di delluwaat lu xew mu ne ko sa borom nee na basketu wurus wii joxal ko ko Aliyu ibnu Abi Taalib karamallahu wajhahu sa rakk ci pom bi mu saraxee bërki démb ci ngoon yàlla nee na nga jox ko lii ab mosaale la rekk bañ dajee ëllëg yowmal qiyaam basketu wurus woowu nee na yonent bi abu sarrin la ko jox ñii ne abu obayda na ko jëlal jëlal basket bii nga yóbbul ko ali ibn abi taalib ne ko yàlla ko ko jox ci pom bi mu saraxee woon démb waa ji jël basket bi dem ba ci yoon mu konte benn ñaar ñett gis ne fukk la mu rocc benn dugal ci poos bi ngir seet lu àll yu ma muy diggaale jit lan la àll yi di wax bi mu ñëwee na ko yunti yàlla Muhammad moo la jox basketu wurus wii mu mel ni basketu pom mel ni kiréetu nen nee na pom bi nga saraxe bërki démb ci ngoon yàlla nee na lii mosaale la mosaale ba yowmal qiyaam àll yi jël kiréet bi konte ko mu nekk juróom-ñeent mu delloowaat ko abu sarrin mu ne ko lii nag mu ne ko yàlla waxutoon lii man benn bu baax laa lebal yàlla kon bu ma yàlla di fay warut maa fay juróom-ñeent bu may fay ci benn bu baax fukk yu baax la may fay te yow juróom-ñeenti nga fi indi jël ko nga delloo ko ci yàlla Muhammad Abu Sarin dugal loxo bi ci poos bi kot koti génne beneen bi ko fukkeel naan ko xeexee fukk la woon dama génnewoon benn bi rek def ko ci poos bi di la seetlu ba xam looy wax Aliou na ko nay noon de yàlla lu leer la wax def ne man jaa bil hasana falahu ashru yàlla ne na ku def ben bu baax ma fay la fukk yu baax lutax ma wara def ben bu baax yàlla di ma fay juroom ñent bu dee ci yàlla la jógee ko fukk la yalla fay pour ben bu baax waye du nek juroom ñent kon boo ñëwee ci saraxe génne asaka saraxe joxe ci yoonu yàlla benn bu baax yàlla dinañu ciy fay fukk ba fay ci juróom-ñaari téeméer baalu ko ëpp boo ñëwee ci yoonu màkka muy aj màkka tiyaaba ji ci gën a rëy salari ba mooy yàlla jéggal la say bàkkaar ba nga mel ni liir bi door a juddu jóge ko ci biiru yaayam gannaaw loolu payga mooy dëkk aljana man xajja falam yarfus walam yafsux rajaa ka yowma waladathu ummu yonent bi nee na képp ku ak màkka ba sa aj jeex moyoo fa yàlla yàquloo fa deru nit nga góorgóorlu ci say farata ak say sunna ba lépp mat aj ni ko yàlla bëggee booy ñibbi da ngay ñibbi ànd ak yàlla raxasal la say bàkkaar ba nga mel ni keroog bi nga juddoo jóge ko ci sa biiru yaay noonu ngay setee ci bàkkaar beneen xadis bi mu ne alxajjul mabruur laysa lahu jasaawun ilal janna aj bu yàlla nangu dara du payu borom lu dul aljana kon aj màkka li muy rëy rëy yàlla wax na la lim ciy fay mooy dëkk aljana waaye weeru koor ci ban aya ci ban hadis la yalla wax ne mom lay fay ci bisu wéru kor bu ne fan la yalla wax ci alquran ne nangam ji lay fay ci wéru kor amut payu wéru kor yalla utenut ko lim amut lim waye lu kor rek am lim bam deskor des موتا قرطبي ان الاعمال قد كشفت مقادير صوابها للناس وانها تداعف من عشرة الى سبعمائة الا ما شاء الله الا الصيام فان الله يصيب عليه بخير تقدير ويشهد لذلك رواية مسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل عمل ابن آدم يضاعف العسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجسي به ay ujaasi alayhi jasaan min xayri taayinin li miqdaari loolu ci koor la ko yàlla def mbokk yi amul ci leneen amul ci beneen jaamu yàlla ci koor rek lu dul koor lu baax lu ne yàlla wax nañu lam cay fay waaye bi mu yegsee ci koor nag utalut ko lim amut lim koor ak muñ ñoo yem muñ yàlla joxewut lim ba mu cay fay bi muy fay muñkat yi déedéet moo tax mu ne koor sax ci muñ la bokk su nit amul jom mënta muñ du mën a woor motax ki or bolé na ñetti xeeti ñëpp as-sabru ala ta'ati llah was sabru an makhsiyati llah was sabru ala miqdari llah ñetti yépp la bolé motax yàlla bi muy wax muñ li muy fay kat yi daf ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi xayri xisaab alquran nee na yàlla dina fay muñkat yi ñu ne ñaata mu ne pay gu amut lim lam leen di fay bindeef xamu ko yàlla rekk ko xam weeru koor it yàlla rekk a xam fay jaam bi ci koor gi moom kenn doŋ moo ko xam wallaay ndeysaan moom rekk ko xam kon mbokk yi foog naa ne bind naa ak yéen bind bu yaatu ci lan moo tax yàlla seppi koor ci biir jëf yu baax yi moomale ko boppam ne moo ko moom wax naa leen ni ko boroom xam-xam yi déggee wax naa leen it li tax mu ne moom moo koy fayal boppam wax naa la it ni jaamu yàlla yépp benn bu ci ne yàlla wax na la boo ko defee lam la cay fay ba mu des koor pay koor yàlla wutalu ko lim moom rekk a xam lam cay fay fu mu nekk dinaa ubbi line bi ngeen mun a bokk si ci programme bi ci two three two three two one three two three two one three mooy nomba bi ngeen mën a bokkee ci seen programme diine ji gis nga koor googu nag coono bi ci jaam bi def daj ko ci ngir yàlla ci nangoo xiif am lekk ci biir néegam te ñemewu koo laal am ndox mu sedd bakkanam bëgg ko te ñemewu koo laal ngir ragal yàlla laa tax suñ borom ne buñ tolloo ca paye ga kenn doyu ko ci boppam rekk a ko ci doy moo tax koor googu nag bu yàlla noonu asawmu lii rekk doyot na waxuma laat mu teg ca ni wa ana aji bii maa koy fayal suma bop lolu warna tax or kat bu ni gëna takkat takkaat gëna gor gorlu ba faxé koram bax koram yalla gërem ko koram yalla nangul ko ko ku ci ne gor gorlu ba moytu luy yàq jaamu yàlla kooram googu ndax koor lu ko yàq dafa gaaw mhm. koor lu ko yàq dafa gaaw dafa sensitif moo tax boo ko xasee def bul ko yemalee ci biir bi rekk waaye soo bëggee koor dëkk ca yàlla ni nga ooralee biir bi aaye ko lekk aaye ko naan noon ngay ooralee cër yi des ci sa yaram wi yépp cër yépp dañoo war a woor bët bi dafa war a woor woor comme ni biir bi ooree bi bët bi day oor ci xool lu xaraam kon koor àndut ak seetaan lu xaraam saay boo ci di xool lu xaraam xiif nga dese ak mar amatuloo koor ca yàlla amatuloo koor de or ba pare di seetaan film yu bon ñu jël Fatou Touré forom wili ngaram salaamualeykum Fatou. maaleykum salaam. Fatou na nga def. maa ngi fi rek. naka waa wili ngara. asalaamaaleykum. salaam. man la yaay Kadi Touré. wax nga dëgg Touré ñu bismillah. man la yaay Kadi Touré. waaw yaa bay ñu ngi lay déglu bismillah. naa def maa defuloo dara. alhamdulilah. maa ngi ci jàmm bu baax. waaw maa ngi sant yàlla bu baax yaa bay. maa ngi toog nii su néeg di la seetaan. jërëjëf waaw ma suma xale yëpp soppe Oustaz Dramé la yaay Kandi Touré kootu Touré sa Ibo Taaw noonu waaw waaw waaw ñooñ suma njaboot lañ waaw sa njaboot lañ kay Touré Jaabo nuyu naa leen bu baax ana ñoom roxi ñoom roxi ñu fi barki dem rek lay fi jógee ñoom roxi fi fi ñoom Kandi ñëpp nuyu nañ leen waaw ñoom Kandi Touré Kandi ngi nii toog di la déglu ñoom kodd yëpp nuyu nañ leen waaw ñoom kodd ñoom ñëpp ngi ni toog di la déglu naka imam ba deful dara dede deful dara deful dara macha allah nuyu naa gi yëpp wa fay la neena la bu jere jef Touré Diabo jërëjëf baax na oustad baax na jef kontan nañ ndeysaan wax na dëgg la allah ñëw ñu suñuy soppé lañ tabarakallah njobot gu bax yal na ñu leen yalla fayal mbokk yi di ngeen mëna bok ci programme bi ci tuutri 23213 2323213 nayu suñu jigéen ju baax fa ajaratu sira saw nekk ca Amérique ak borom këram ak njabootam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Fatmata Diallo moom tamit ak borom këram nekk ca Hollande ak njabootam ñu ngi leen di ñaanal bu baax di leen ndokkeel ci weeru koor wu màgg wi di ñaan yàlla yal nañ yàlla bokk nangul koor gi lim ci digg yépp ci yërmande ak njëggal ak gore ci safara yal nañu ko yàlla boole defal eh, Abdallah yes salaamualeykum naka waa Tujereng ah, naka koor gi Abdallah naa maa ngi sant yàlla bu baax taw weer bi alhamdulilah ñu ngi góorgóorlu yal nañ ko fekkee at yu bëree bëree bëri. amin amin amin yaa rabbal alamin. lépp luñ ci ñaan yal ko yàlla nangu. amin amin yaa rabbal alamin. kontaan nañ trop waxtaan bi neex na. alhamdulilah yal na yàlla kontaan. waa ji yaa nañ ko déggoo yaa nañ ko hmm? ko déggoo yaa nañ neex na. neex na trop neex na trop. bu baax sant yàlla bu baax. weeru koor moom weeru koor moom dañ ci tere lu bëree bëree dañ ci na. la waaw dañ war a woor bakkan war a woor. dëgg la nopp yëpp. ndeysaan nopp yëpp day war alquran rek alquran rek nga ci la la. Eh, alquran di ko wala nga koy waaw programme bi neex na trop macha allah. te te li ko jox càng googu màggaay boobu mooy wàcc gi ci alquran wàcc. waaw waaw alquran mooy lépp. moo tax mu féetee kaw ngëneel ci kaw weer yi ci des yëpp mooy sangi weer yi. gis gis moo ci gën. wallaay moo ci gën moo ci gën. moo ci ci jërëjëf jërëjëf booy jërëjëf kontaan ci yow. jërëjëf ma waa Tuujereñ yëpp nag. waaw ñu laa dellu waaw jërëjëf waay. baax na jazakumullah an kulla xeyr allah mu ngi noonu ñu sant ko bu baax a baax suñu toomaa jooju di wootee ba Tuujereng two three two three mooy nomba bi ngeen mën a bokk say ci seen programme diine ji fii ci ay Africa ngeen di ko am nag ajjuma ju nekk juróom benni waxtu ci ngoon ba juróom ñaari waxtu waye di am samedi bu nek ak dimanche bu nek juromi waxti ci ngone ba jurom benni waxtu ak genn wal ci ngone inshallah taala two three two three two one three fa tabarakallah ñu jël bac mbay forom ñani ja bac wa alaykum salam wa rahmatullah naka nga def mbay Oustaz. naam. waaw ñu ngi rafetlu programme bi bu baax. jërëjëf Mbaye. waaw di xaseene siara, mhm. mbokki jullit yëpp. dëgg la. di jiyee jiital ci siyaara bi nag. Mhm. Maolana Cheikh Bassir Sang Omar Kébé ci Madinatu Anwar. ah macha allah kooku suñu sëriñ la suñu soppe la. ok di siara it ci bépp muqaddam ak bépp taalibe boo xam ne. يكون تكت مولانا سي خير عمر كبير Nam. ما شاء الله دي سيارة هيت dokki julli ni ci àdduna bi tout. dëgg la di ñaan yàlla koor gi ni ñu ko tàmbalee bisimilah rahmaan rahim yal nañ ko àggal ak alhamdulilah rabbi alamin. amiin amiin Amin mbay amin siyaare bi bu ñu siyaaree bokk julli ñu ci siyaare yi suma ñaari jabar. mooy Asi Gueye mooy suma aw Afan Ndiaye mooy suma ñaar ak sumay doomi góor yu jigéen. ndeysaan allah. waaw ci suma goro yi it maa ngi cee jiital Fatou mbay mooy aawo kër gi. dëgg la. Fatou Mbaye mu ne mooy aawo kër gi. dëgg la. waaw di ci teg ay satu mbu. di ci teg it seen bu sekk. Mm-hmm. ñii ñëpp sumay goro la maa ngi leen di siyaar ak ñoom ak seen i jëkkër. tabaarakallah. di di siyaare njaboot gi yëpp. jërëjëf Mbaye jërëjëf. te te Oustaz maa ngi laa wax ne maa ngi gërëm yàlla yéen bi di gërëm bu baax sama njaboot. Mm-hmm. ndax sigil nañ ma déggal nañ ma sigil nañ ma. macha allah. wallaahu moom daal gëm naa ne may itam li ma war ci ma diggante ñoom dinaa ci taxaw bu baax. tabaarakallah tabaarakallah. mooy fas yéene ñaanal rek suñ jublu yàlla yàlla defal leen seen bëgg bu amiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin ak seen sigi ñu ngi siyaare ñëpp nag di bëgg ci kontaan ci kontaan ci programme bi. jërëjëf Mbaye jërëjëf macha allah. nag ñu ngi xaasalaat Maolana Cheikh Basir beneen siyaare boo xam ne ñun njaboot yi ñoo ko waaye amiin amiin may koy yoro wu gudd wu ànd ak géeram ak fajaaji biir ak biti. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin fu mu bëgg a yóbbu euh, faydu Maolana Cheikh Sène Omar Kébé ko ko rombal ci kàttanam. amiin amiin yaa rabbal ربي امين اللهم امين يا ربي امين امين أمين جيرجو كونتان أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين ماني نياني فيرداوس لا دك دي نياني نياني فيرداوس وا باخنا ان شاء الله باخنا باخنا جيرجيف ñu sant ko bu baaxa baax baj mbay forom ñaani nayu fa tabarakallah wa ñaani yep euh nayu fa tabarakallah suñu sëriñ eh, alhaj bay mot si nek fa lé ca baati ak wa baati yépp sha allahu taala yal na yalla boole defal ñépp jamm two three two three two one three moy nomba bi ngeen mëna bokké ci eh, sen programme diiné ji fi ci ay Africa TV fa tabarakallah di eh, sante mbokk yépp fu ngeen mëna nek ci googu aduna bi di and ak ñun ñu ngi ñaanal ñëpp yal na defal ñëpp jamm yal na yàlla bokk dimbale ñëpp fa tabarakallah kon mu ngi nonu korangok fa tabarakallah wax nañ leen hikma bi tax yalla askanale ko bopam ba pare itam ne jaamu yàlla la goo xam ne moo ko moom bokkul ko kenn te ku ne xam na ne li des ci jaamu yàlla yépp moo ko moom ndax qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu wa ana awalul muslimin loolu yépp day jàngale ne baqiyatul ibadat yépp kulluha lillahi subhanahu wa taala yépp pour yàlla la moom moom lépp waaye nag koor fa tabaarakallaahu fa mu ko toll moom yàlla lu kawe la ndax mooy jaamu yàlla gi nga xam ne moom rekk lañ ko mos a defal te boolewuñ ko leneen lu dul moom waaye tamit waxtu wi ko jaam bi di def yàlla jalal ko mu xañ boppam ndéewa suba xañ boppam añu bëccëg xañ boppam ñam wu sedd aaye boppam lépp luy bànneex lépp ngir yàlla kontaan ragal yàlla googu jaam bi am ci jamonoy koor gi moo taxoon yàlla faratal koor moo tax ramadaan nekk shahru muallim weeru jàngale weer woo xam ne dafa ñëw pour jàngal nit ñi fa tabarakallahu ragal yàlla buñ la ne weeru koor dafa ñëw pour jàngale faw nga laaj de ku ñëw pour jàngale fokk nga am ay taalibe yoo jàngal waaye fokk nga am téere boo sukkandeku pour man leena jàngal kon ramadan moy shahru muallim wal qur'anul karim kitabu wa saimuna talamizu weeru kor moy jangale kat bu mag bi moy ticca bi al qur'an moy tere bi nga xamne ci lay ko pour jàngale moy constitutionam ñan ñoy talibem ñan ñoy ay dongam ay dongam moy or kat yi moy julli kat yi lan la ñëw pour jàngal leen lim ñëw pour jàngal leen moy melokan bobu nga xamne kuko am sa aduna jag sa alakhir rafet nga jubok yàlla loolu mooy taqwallahi moy ragal yàlla motax bim koy faratal ne kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum lam tëjee ayaba ba mooy laallakum tattaqun yàlla wax na ak ñi gëm yàlla ci alquran ne farataal naa ci yéen oor weeru koor comme ni ma ko farataalee woon ci xeet yi leen jiitu nga jàngee ci ne koor kon duhut luy lor nit ndax bu fekkoon day lor nit kon dana lor ñi la ci jiitu woon kon jaamu yàlla la boo xam ne bi la ko yàllay sant am na ñum ko santoon ñu la fi jiitu woon ñu di ko ko defal ñu ne yàlla lan muy njëriñu nga santaane ko mu ne dama bëgg ngeen jëlee ci lu ñuy tuddee taqwallah muy ragal yàlla ndax ku weeru koor yar ñaar fukki fan ak juroom ñeent wala ñett fukki fan mu yar la ci li la lew ta dagan la sax yaa ngi ci téye sa bopp ngir ragal yàlla kon waxuma laak li nga xam ne danga ko gis ta lewut la ndegam li la lew ci nga mën a jàpp sa bopp téye sa bopp ba doo ko laal kon yàlla gëm na ni boo génnee ci weeru koor it di nga war a qualifié pour moytu lépp loo xam ne lewut waaye dinga nga mun a qualifié pour moytu lépp loo xam ne alalu jàmbur la lépp loo xam ne moomuloo ko lépp loo xam ne lu xaraam la dinga nga mun a téye sa bopp nag pour fekk ca sa bopp fa tabaarakallaahu ba doo ca àgg لولو موتاخ سيدنا علي كرم الله وجهه بين كو لاجي لان موي تقوى لان موي راغال يالا دغ دغ دفني التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنسيل والرضا بالخليل والاستخداد li ليوم رحيل alli ne ne lii mooy taqwallah lii mooy ragal yàlla ragal yàlla daal mooy nga bàyyi xel yàlla lim dige lim digle nga nga def ko lim tere nga góor góorgóorlu ci moytu ko alli ne ne loolu mooy ragal yàlla sax ci li yàlla santaane di ko def bàyyi ay tereem Seydina Ali nee na loolu mooy taqwallah mooy dëggi-dëggi ragal yàlla ñu ne ko loolu rek mu ne déedéet wal xamalu bi tansil Ali nit ki bu ragalee yàlla tam nekk dëgg ci moom li alquran digle daf koy def waaye li alquran tere kenn du ko ci gis kenn du ko ci dégg kon ki ragal yàlla alquran mooy constitution mooy téere bi muy sukkandiku di dox ci ay ndigleem di moytu ay tereem waaye di attewoo ay atteem di jikkowoo ay njàngaleem alli nee na ki ragal yàlla noonu lay mel ak alquranul karim day jëfe fa tabaarakallaahu téere bi yàlla wàcce ay ndigleem daf koy jëfee waaye ay tereem daf koy bàyyi mu ne bu ñetteel bi mooy warida bil xalil day gërëm li ko yàlla sédd donte li li ko yàlla sedd tuuti na waaye du xeeb day sant yàlla ci loola day ànd ci fa tabaarakallaahu atte yàlla yi ak dogalam yi donte la li yàlla atte ci moom neexu ko bakkanam bëggut ko waaye gannaaw yàlla loolu la dogal moom day kontaan ca loola day bég ca àtte boobu day nangu dogal yooyu day nangu natt yooyu waaye bu yàlla séddalee it day ànd ci seddale suñu borom subhanahu wa taala bi ci des mooy wal istixdaadu li yawmi rahil gis nga ki ragal yàlla foo ko fekk day wàcc day wajal Bopam jamono bu ne xamne mom aduna bi bii daf fi gane si suba bu yeewoo rek day gem ne tay la ngan gi di jeex motax buy julli julli ga muy julli sax daf koy def salatul muwaddi moy julli ko xamne day mel ni kuy tàggutoog àdduna ki ragal yàlla lépp lu baax lu muy def daf koy rafetal jox ko àqam jox ko ciram def ko ni ko yàlla diglee ni ko yonent bi daan defee mu defee ko noonu ba mel ni dañ ne ko jaamu yàlla bii mooy sa mujjantelu jaamu yàlla ci àdduna ba tax na buy julli day jox julli gi àqam teewlu yàlla ci julli gi ànd ak toroxlu bu mat sëkk matal rukkoo yi matal sujjóot yi am dal bu baax ci julli gi yëg ne yàlla lay jaamu mu jox yàlla cër bu ko kenn mosta jox ci julli gi ba mel ni dañ ne ko xanaa bii mooy sa mujjéntalu julli booy julli ci kaw suuf xam nga ku ñu waxoon ne tàkkusaan bii mooy sa mujjelu tàkku mujjéntalu tàkkusaan booy julli ci àdduna walla timis bii di ñëw mooy timis bi ngay mujj julli ci kaw suuf boo koy julli mbokk yi julli ga dana yàgg ruko ya dana baax sujjóot ya dinga ko jaarale yoon julli googu doo ko taf tafee mukk ba àdduna tukki kon jullit bi noonu la war a gisee àdduna fu mu tollu day wacc ba bu malakul mawti ñewé na ko ñëw naa yow laa jël ci mu fekk mu ne ko paré na yow la doon xaar lolu moy wal istixdaadu li yawmi rahil moy wacc xamne ne da ngay ñibi looloo tax yonent sallallahu alaihi wasallam ni jullit piir bu xëyee warul yaakaar ne ngoon dina ko fekk ci àdduna bu ko fi ngoon fekkee warul yaakaar ni bët dina ko setee ci àdduna yenent bi nee na képp kuy dundee noonu ñu ne a ah mu ne deedu la bett mukk képp kuy dundee loolu nga xam ne lépp loo war a def tey doo ko xaaree ngoon loo war a def ngoon doo ko xaaree guddi loo war a def guddi doo ko xaaree suba mu ne koy def loolu dee du la bett kon fa tabarakallah mel na ni liñu ñu ci waxtu wi tut xana ñu jël suñu laas koola bi muy Tijaan Tijaan janko waaw assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah aj tijan. waaw alaykum assalam wa rahmatullah bismillah waxal rek ta baña deglu télé bi ñu ngi lay deglu

loolu moom du ñu rek yàlla yàlla bàyyi amiin am fan gudd gudd gudd gudd gudd amiin waay amiin waay amiin macha allah dara jàppale nga amatu sa xam bu ñu wax kontaan nañ bu baax wax dëgg xam naa ne pratique nga ko xam sa dégg nañ dellu na bu baax a baax su suñu diggante yow sama kër jaar nga fi tey ma bëggee ko nag mu nekk ndam ci man itam dëgg la dëgg la kontaan nañ bu baax a baax a baax xaaj fa di bëggee doomi soxna yi mel ni moom nga xam ne ilimaan bu mag la di borom xam-xam nekk fële ca ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nit ku baax di jëmmi njëriñ fa tabaarakallah ko am njëriñ ci jaami yàlla yi yal na ñu ko yàlla fayal xaj ñu ngi lay ziyaarawaat di la wàcce sa wàccuwaay di teg suñ nuyoo ci sa loxo nga jottali ñu ko soxna yi njaboot gi di ñaan yàlla yal na yàlla yokk la ndimbal yokk la taxaw baril say kem ci kaw suuf fa tabaarakallaa kon mbokk yi euh, lii la ñu waxtu yi cërale ak yéen tey ci seen programme diine ji di leen jox dig daje insha allahu taala ëllëg ak jàmm ci kàttanu ki ñu mayoon kàttan bu ñu ko mayaatee may ñu jàmm dinañ fi teew si waat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fi amaanillah